j'espère que am ngeen carte yu jàmm wala sax xam ngeen ni carte IDAM. boo amee carte IDAM daf lay jàppale ci ordonnance yi nga xamante ni ñu ngi la koy jox ci hôpital bi maanaam daf lay wàññil fere yi. maanaam buñ la bindalee ordonnance su junne juróom-ñetti téeméeri yëpp idaam ñoo koy fay maanaam yow ñaari téeméer rek ngay fay. yow mi nga xamante ni jigéen ju wanu lor nga carte IDAM bi ñaari junne rek nga koy jëndee. durant neuf mois yi ba bi ngay amee doom ñoom ñoo lay jël en charge même boo defee opération ñoom ñoo lay jël en doo fay dara. ngir am carte IDAM nag. ñaar téeméeri dërëm rek ngay joxe maanaam moom ngay adhéré ñu jaayee la carte bi juróomi téeméer waaye nag bu ngeen di bindu fexe leen ba ngeen mat juróomi nit carte bi nag at lay duré maanaam un an bu jot ngay changé jóg wuti carte idam war na ku nekk ci yéen ngir mu yombal seeni faju couverture maladie universelle UDAM ñoo leen di may seen série koru Paddu Pod yaakaar du pudd moom kese ndax am na kon waaju du ko may dara tax mbir mi danse alhamdulilah jërëjëfe Serigne Ahmed Diaw soldaaru Cissé ah jàmbaar la de moom lépp looy dugg yàlla may na ko kurus goo xamante ni danaan taj taj rek nga ne yoon wi leer na baa leeru boo bëggee ñaan lu bëgg say mbir baax seeti leen sëriñ Amet Jow soldat daalu Siise naa ko booleeg nday ummi jeen sax parce que moom responsable politique la femme di développement la yooyu yooyu dana koy soxla. <laughs> ba pare ma. kañ ngay nuyoo. bokkuma ak gis nga sama lu mu dugg yow yaa si dugal. Eh, mooy a séddee. yaa ngi dégg baax lu ma la wax bàyyi nag di manigance ay affaire ba pare sa papa bu nekk si ay problème nga génn si. toog ñoo ngi nii si mbedd bi dinaa ne sa papa moo def léeg-léeg. toogal lépp sa baay ngay waxal. yow yow yow caataan la. teel yow war nga maa fekk en tant que chef de quartier dama dama dama jox kanam gu fi yow. parce que yow yaay dugal sa papa ba pare génn. Eh, parce que loolu laa bëgg nga arrêté léegi yow am nga fu lay wax ak man naan ma parce que. parce que sa papa moom moo moo amul fu la bu mu nekkee. sa papa mi takk sa yaay ku ko ci dugal sa papa mi takk jabar ku ko ci dugal. man maa ko ci dugal man maa wax sa ba muy du lan la def de toute façon bu leen dul wax dëgg man maay ki leen di wax dëgg. Ah, non non ba kala bi misaal njuuma noo sant mu ne yow lan la luñ la wax ci mbedd mi maa dañ ne sa papa daa iri lan la. loolu yëpp sama yoon nekk lan lañ la wax di nga di nga arrêté di wax li sama si sinon mën a yow mais lan la ko digaale ba mu luy problème bi lan la sa baay de dañoo dañ naa kar si mbedd bi naan ma sama papa moo kidnappé xaw ma kan ak kan mooy ah, borom costume bu fraw waaw waaw iso yow yaa ñàkk fayda yaa ma rus la bëgguma di dox si mbedd bi nit di ma yab dèjà maa ngi àndoon nag sama nit ku am classe ñu taxaw si mbedd bi naan dañ may waaye bu àndee nit ku am classe léegi nekk ci biir école ñun ñooy école bu àndee nit ku sa sa papa man bu dee yab lu man xam nga ne bëgguma ko ma yab bañ naa ko buñ lay mayee say morom dañ lay yab ndax bañ ko ñu yab ñun bu dee yabeel fii la fekk baax de. bu dee Joppintaas nag ak Samsung est ce que xam nga lu tax seen baay tuddee loon noonu ban juddoo tuur fenkat dañu wër ba sonn amuñu ko koo leen nar a tuddee ñu ni kii doomi fenkat lay doon bu ma ko tuddee ñu tuddee leen ay Samsung ak Joppintaas dañuy duul galère yi ci boppam mu engagé politique bi ba pare ay xam nga politique ay booy dañuy kar naan la eh, boo dof dof loolu da ngay jël maire bi dañuy nday googu ñu ciy teg la ñemewul bu fekkee ñoom jóga jóga jógal kenn dootu la kar maa koy lijjanti loolu lañ la def loolu maa koy lijjanti jógal bu la sa papa dara nag. daal wax naa ne li ma la wax ba pare bëggatuma di dox si mbedd nit di ma kar man dooguma sa papa bàyyi ma nii de dafa maa duggal salle de karaté ma jàng ba toll fi ma toll li may bañ nag mooy tase ak kenn si ñoom ñus leen ñu ñu tëj ma. loolu laay bañ. ñu sa boo yeboon a ngeen xam ko yow sa yow sa bopp si yow laa siy. <laughs> boo yeboon na Mauritanie daanaka xale bu rawee rek nga fàttali ko kii wu baayam ba ñuy dox fu ba gone bu rawee rek nga fàttali ko ah réew. yow yow man fi ma dem danga faa dem man ngay ñuus dangaa jàng karaate.